Black Timber. d' accord euh, fan yëpp coowu pikinité tamit dégg nañ ko bu ñu jógee tuuti sa combat ak bombardier mais est ce que gëm ngeen dëggantaan pikinité parce que gis nañ Baboy def jubilé yow li ngay dem yëpp demoo si jubilé Baboy. waaw c' est vrai dewuma que man maa sentirul dem foofu. sérieusement waaw man dama direct quoi du ma ci jubilé Baboy te bu ko dem def dix fois tamit du dem. parce que dama sentirul dem foofu. da nga parce que non jotee moom mais sa keppaaru noonu boo fa gisee sa xarit da koy moytu toujours su loolu la. man moom ay biru baabooy moom bon wax dëgg yàlla ça va mhm. nuñ sekki jàmm nag quoi ça va ça mu mhm. yëkk jàmm mais ku ne xam na fu mu féete man mënu ma gos gauche jot droite voilà ok mhm. loolu quoi toujours dégg naa ko mu ne Modou Lo moo tax ñu jàppante maa ngi jote wala non non ci loolu merew ma ko ci loolu aussi. waaw non sérieusement merew ma ko ci loolu. dafa wane boppam wane fu far te affaire de làmb la te léegi lu may wax rek dootuma bëri kat mbiru làmb laa. na fu mu far te nëbbutuwu ci kon lu mu def lu dul méfié wu méfié wu mooy toog sama ruq liggéey waaw non dafa far moom dem na ci fële jóge fee dem fële suba tamit mun a xëy demaat feneen waaw man bokk ma ci fot ci yooyu quoi man maa ngi gérer ak sumay nit ak sumay frère ak sumay famille ak suma encadrement di gérer mais bésam bi moom ku ma ci joxoon 1 milliard sax du ma dem doo dem waaw parce que pare moom pour dem ci bésam kon Ama parce que Ama Baldé euh, dafa nekk ak Balla Ama suma rakk la jàmm rek lañu sekk te suma rakk rek lay doon mhm. ndax su ma rek lay doon am problème. ok kon pikinité bi existé na. samay rakk lañ dama leen di uuf ñoom ñëpp. Hmm.